di ziar kulluhum euh, waa gars yi lañ doon lañ doon waxtaan tuuti quoi dama dama doon déglu Tahirou Sarr Tahirou Sarr bi wax affaire immigration affaire carte de séjour affaire noonu mais Tahirou Sarr yow man dama la dama bëgg nga dal quoi Tahirou Sarr àndal ak tuuti dal àndal ak dal quoi bul fi indi ay tension bul fi andi ay tension gis nga dirigeant wala boog kilifa il faut nga dem ak diplomatie il faut nga ànd ak tuuti diplomatie tuuti sérénité bëgg poste ñu fal la poste ministre. wala ñu fal la poste xaw ma lan poste yooyu nga wax noonu moom nga bëgg ñu fal la ko loolu warul tax nga indi ay tension ci dëkk bi yow Tahirou Sarr xam nga la la nañ waxante dëgg yow mu yow mënoo gën a bëgg dëkk bi gën ko bëgg Ousmane Sonko yow Tahirou Sarr mënoo gën a bëgg dëkk bi ba gën ko bëgg xale yi nga xamante ne ñoo ñoo fi nekkoon di xeex ba ñii joxe seen bakkan ñii joxe seen i cër dégg nga ñii joxe seen seen voilà seen sante ñii joxe seen lépp lu ñu am boobu Tahirou Sarr yow ñu gis ñu la woon quoi ñun gis ñu la woon Ousmane Sonko mii nga xamante moom Bassirou Diomaye Faye mii nga xamante ne ñoom la sénégalais tey jël dëkk bi te ko seen loxo sa fait dix ans ñoo ngi xeex yow gis ñu la woon Tahirou Sarr bu fi bàyyi nag ba affaire yi sotti nga bëgg fi ñëw duñu chantage ñun ay chantage doxuñ si ay bu ñu ma falulee ministre de l'intérieur bu ñu ma falulee ay ministre de l'immigration bugguma da ngay dem opposé wu mais demal nga opposé wu Tahirou Sarr dalal bul indi ay tension ci dëkk bi ñun suñu frère guinéen duñ si ay duñ suñuy ennemi encore une fois nekkuñ suñuy noonu bien que bëri nañ Sénégal ñoo lañ faf ñoom ñoo fa ëpp ci immigré yi nekk Sénégal ñoo fa ëpp ci étranger yi d' accord dañ d' accord képp kuy étranger Sénégal dañ la war a jox da war am këyit accord mais loolu yow Tahirou Sarr ñun gënoo ñu ko xam gënoo koo xam waa xam Ousmane Sonko Ousmane Sonko moom mi jël bakkanam teg ko ci teg ko tayle ko jël ñoom Bassirou Diomaye Faye ñoom ñi nga xam jël nañ seen bakkan tayle ko tayle seen ëllëg tayle seen avenir ak seen avenir njaboot da nga gën a bëgg dëkk bii da nga mës a dégg Ousmane Sonko di dal ci benn kaw étranger da nga ko mës a dégg da nga mës a dégg Bassirou Diomaye di dal ci kaw benn étranger yow Tahirou Sarr àndal dal Tahirou Sarr te li ngay def lu dangereux la nag li ngay def ni Tahirou Tahirou Sarr discours bi nga tënee nii c'est un discours yaa ngi dégg dangereux bu fekkee da nga bëgg dégg-dégg kese parce que yow yow booy yi nga xamante ne nii amuñu benn maturité bi buñ la toppee ci sa discours bi loolu mën na indi ay voilà mën indi ay guerre civile ci dëkk quoi man lan moo lan moo tax nga bëgg rek taxaw ci loolu waaye ban ma falulee lii waaye étranger lii mais calme-toi Tahirou Sarr dalal question bi ngay soulever nii boobu mu ngi ci biir projet Pastef képp kuy étranger moo xam Guinée nga moo xam français nga moo xam allemand nga koo mën a doon américain boo duggee Sénégal da ngay am këyit da ngay am titre de séjour bul jël affaire bi rek bëgg ko fixé ci benn ethnie dem dem Pa Moussa mu ngi la koy mu ngi lay mu ngi lay avertir mu ngi ci loolu lan moo tax nga fixé wu ci ci ci Guinéen yi. mais bul def loolu Tahirou Sarr di am plus nga taxaw naan waaw man bu ñu ma falulee lii bu ñu ma falulee lii mais yow kan kan kan kan ngay chantage parce que loolu chantage la ko quoi Tahirou Sarr li ngay def noonu chantage la yow yow idée boobu nga am cest dire cest dire loolu nga xamante ne moom mooy sa moom mooy sa cest mooy sa mooy sa idée boobu nga am ñu loolu ñun ñëpp d'accord nañ ci mais y une manière de le dire jalu nga dem toog ci di koy yuuxu bay susciter ay tensions dëkk bi. ñun suñu frère guinéen du ñu suñuy noon guinéen yi nekk biir Sénégal du ñu ay noonu Sénégal ñu régulariser leen jarul dem ci plateau télé di ko yuuxu bay génne ay menaces wala ngay def ay chantage. Tahirou Sarr yow yow allié kese nga simple allié nga bokkoo ci bokkoo ci coalition Diomaye bi ah maanaam programme Pastef bi bokkuloo ci Tahirou Sarr yow simple allié nga quoi. dégg naa la nga naan ay buñ la falu leen nga opposé wu mais damal opposé wu damal nga opposé wu Tahirou Sarr ah oui ñun dañoo opposé wu dix ans Tahirou Sarr ñun dix ans lañu opposé wu dix ans lañ nekk ci dëkk bi di xeex ak Macky Sall dix ans yow boobu yaa ngi ànd ak Macky Sall ànd ak Idrissa Seck di dugg na ndaat 2014 lañ commencé xeex ak Macky Sall ñun pett ci ay nit pett ci ay bakkan pett ci lu nekk boobu ñun gisuñu la xamuñu la Tahirou Sarr bul bàyyi ba affaire yi sotti nga bëgg fii ñëw bëgg fii indi ay tension calme toi yow Tahirou Sarr calme ma loolu laa lay wax quoi. calme-toi Tahirou Sarr calme-toi waaw li nga def nag day gën a nuroog populisme en fait mu mel ne yow loolu ngay wax noonu yow rek yaa ko a assumer mu mel ne yow loolu ngay wax noonu yow rek yaa ko xalaat ci dëkk bi mais ñëpp xalaat nañ ko passif boo demee seen projet bi di nga fekk li nga xamante moom mooy souveraineté te souveraineté dafa ànd li nga xamante nii moom mooy identification wu citoyen bu nekk étranger bu nekk ñun ñun xam nañ ko loolu moo suñu programme donc Tahirou Sarr bu fi ñëw di jëm a profité gars yi bay dugg ci ay affaire de chantage parce que li ngay def noonu chantage la quoi ay bu ngeen ma falulee direct mu tudd ministre ministre de l' intérieur bu ngeen ma falulee ministre de l' intérieur saa yi nekkul rek affaire étranger quoi waaw nekk ministre de l' intérieur du rek affaire de lijjanti affaire ñi nga xamante ne ñoom ñooy étranger yi non non li ministre de l' intérieur maanaam nekk ministre l' intérieur loolu voilà ça va de dem di topp ay guinéen Tahirou Sarr ça de ça donc calme bu fi indi ay tension dëkk bi. parce maa ngi gis gars yi di reprendre say vidéo di reprendre say discours discours yooyu noonu ngay ngay tenir Tahirou Sarr discours yu populiste la te discours yu dangereux la. étranger yi nekk Sénégal mën nañ leen mën ñoom ñëpp te coow du jib duñ indexé kenn mais bu fi ñëw di indexé ay benn benn benn ethnie en particulier bu ko def. parce que Pa Moussa sax mu ngi la ciy interpellé démb di la ko wax na la la ma tax ngay topp guinéen yi kese nga bëgg a ko wax yow yaa taxaw joxoñ guinéen yi pourquoi ngay joxoñ guinéen yi mais waxal étranger ba pare bëgg taxaw di ci insister bay wax naan ay buñ ma falulee lii buñ la falulee dara Tahirou Sarr buñ la falulee dara laa la wax ministre de l'intérieur doo ko nekk d'ailleurs doo ko nekk. la moo tax nga war a nekk ministre de l'intérieur juste rek pour dal ci kaw étranger yi loo moo tax nga bëgg nekk ministre de l'intérieur doo ko nekk parce que ñun jëluñu réew mi pour fi kay ay tension jëluñu réew mi pour di fi xeex ak di xuloo kenn réew mi dañ koo jël pour defar ko mais pas di indexer kenn wala di cibler ay ay en particulier bu ñu indil ay problème Tahirou Sarr àndal ak dal njiit njiit li njëkk ci moom qualité bi njëkk ci njiit mooy sérénité Diomaye Faye li mu fi gàddu ci responsabilité kenn dafa xam lu mu toll Diomaye Faye Pastef bi nga xamante ne parce que yor nañ plus de mille cadres Pastef lu plus de mille cadres la euh, Pastef yor te ñoom cadres yooyu yëpp Diomaye fay moo leen yoroon di leen gérer ay banquier ay ingénieur ay scientifique ah façon façon métier bu nekk façon maanaam. qualification bu nekk am na ci biir Pastef ñoo ñëpp Diomaye Faye moo doon gérer da nga dégg benn benn yoon Diomaye Faye di def bruit yi ah. da nga dégg benn yoon Diomaye def bruit da nga mës da nga mës a dégg muy wax ba baatam sax di jug ci kaw te Diomaye Faye lu mu lu mu jiite ci ay kàngam ci biir Pastef kenn dafa xam nu mu toll. nga bëgg fi ñëw yow pour ay affaire d'étranger rek bëgg fi ñëw voilà di def ay récupération calme-toi Tahirou Sarr calme-toi njiit li qualité bi ñi ko xaar ci njiit mooy sérénité dal. mooy qualité bi njëkk a xaar ci njiit mais loolu dafa mel ne yow yoruloo ko quoi amuloo ko amuloo qualité amuloo sérénité Tahirou Sarr calme-toi voilà calme-toi quoi bref man loolu seen atelier diir yow Tahirou Sarr liñ fi liggéey nag pendant dix ans du du du ay du ci ay plateau télé ngay toog pour ko récupérer parce que li ngay def loolu lay nuróol quoi récupération lay nuróol di insister di insister di insister waaye bañ ma falulee lii waaye lii waaye laa non mais mais dal leen ñun on a perdu presque soixante ans de notre vie on a perdu soixante ans de notre histoire loolu benn mandat rattrapé wu ko ñun liggéey bi métti moo ñuy xaar sérénité ak concentration bu mat sëkk moom lañu moom moom moo ñuy xaar pour ñu mën a defaraat dëkk bi benn mandat doyuñu ñaari mandat sax doyuñu ñun dëkk bi il faut ñu téye ko minimum trente ans pour mën ko defar comme ñu Dubaï mel Sénégal pour ñu def ko comme ñu Dubaï mel. il faut que ñu téye ko minimum trente ans il faut Pastef nekk ci bopp réew mi trente années yu ferme Basirou jël benn bay bàyyi Ousmane Sonko ñoo jël ñaar bàyyi Basirou jëlaat benn bàyyi jëlaat beneen bàyyi jox Ngagne Demba Touré jox keneen ak keneen ñun ñun projet boobu la am Tahirou Sarr li nga bëgg mënoo ko am ci benn mandat c'est pas possible da ñuy tàddeel perte loo ñu sunu temps kese indil ñu ay problème dañoo wax ne dëgg nag quoi mais Guinée bu nekk biir Sénégal di fi liggéey di duggee ci économie sénégalaise bi Guinée boobu ko war a respecté ah waaw ñun ñëpp on est que ku nekk Sénégal nekk fa étranger nga war a am këyit loolu on n'en disconvient pas te loolu mu ngi ci donc calme toi voilà calme bu fi indi ay problème ay ay wax yi sew ah mu ngi noonu beneen affaire bi mooy maa ngi gis Macky Sall di décorer ay ay. ay ay chevalier de l'ordre xaw ma lan di woo ay nit ci pale bi di leen décorer di leen may ay di may ay oto ak ay passeport diplomatique ak ay nangam nangam man dama la bëgg a wax Macky Sall lan la jublu ci loolu moom nag dafa soxor naturellement Macky Sall dafa soxor xam ngeen ko Macky Sall c'est quelqu'un de c'est quelqu'un d'aigri c'est quelqu'un de méchant Macky Sall ku soxor la c'est un haineux c'est un rancunier. te loolu la nekk di manifester nii ndax li mu nekk di def nii du lenn lu dul sabotage te saboté nag ku iñaan moo koy def iñaan ku soxor mooy saboté perte na nguur gi ba pare war a dem mën a du dem il faut que mu yàq lépp lu mu mën a yàq mu yàq ko te ci loolu nekk Macky Sall mu ngi ci yàq gu méttee méttee méttee jamono jii ñuy wax a yéen mu ngi jël alalu réew mi di ko pasar pasare dégg nga di créer ay nomination yu bees loo xamante ne nii responsabilité nguur gii di ñëw la parce que moom daanu na moom perte na moom nekkatul président bu Sénégal mais li ko fi dese ci ay heure mu ngi ciy profité di yàq lépp lu mu mën parce que dafa iñaan Macky dafa soxo dafa iñaan loolu moo jiitu bi si mooy il prépare son opposition Macky Sall li muy def nii yëpp dafay prépare opposition bi lay préparer cest à boo waree nekk opposant mais Macky Sall du nekk opposition Macky Sall du nekk Macky Sall du doon opposan waa APR waa PDS sax ñoo li gën a yàgg APR bi bu Macky Sall di di di di wàcc nguur gi APR di tas parce que xamuñu opposition mosuñoo opposé wu Macky Sall il n'a jamais été un opposant du opposé wu te il le sait xam na ne du opposé wu xam na ne moom il fi fini saa say jeex na quoi jeex na moo tax muy saboté di yàq di voilà def lépp lu mu mën yàq ko mu ngi dégg naa mu ngi vidé palais bi. palais bi lépp lu fa nekk comme objet de valeur Macky Sall mu ngi koy génnee mook doomam boobu ñu ngi koy génnee di ko def ci ay conteneur di ko jaarale fi nga xamante ne mooy Mauritanie pour acheminer ko fi nga xamante ne mooy Maroc loolu la Macky Sall loolu la nekk actuellement di def yemul ci ay jël ay décret yemul ci ay nomination yu bees mais même palais bi sax Macky Sall mu ngi koy vider moo ngi moo ngi raxas palais bi mu ngi génne lépp lu fay objet yoo xamante ni sax moom Abdoulaye la ko fekk waxuma la sax moom de mais Abdoulaye Wade sax foofu la fekk objet Macky Sall mi ngi jël objet yi di ko rawale tableau yi nekk tableau d'art yi nekk ci biir palais bi objet de valeur yi nekk ci biir palais bi yëpp Macky Sall mu ngi koy rawale jamono bii may wax ak yéen parce que comme que dafa créé dafa jënd pale fële nga xamante ne mooy Maroc dafa jënd pale di nekk suñu pale bi moom la Macky Sall di jël pour yóbbu ko fële ci palais bi nekk Maroc pour installer ko fa loolu sénégalais xam nañ ko xam nañ ko nomination yu bees yi mu nekk di nominer c'est pour préparer l'APR à l'opposition comme que xam na ni moom voilà APR parce que dara nekku fa APR ñu fa nekkoon ñëpp ay sàcc lañ ñii ay sàcc lañ ñii ay voilà ay raciste lañ ay ethniciste lañ tu vois APR day tas léegi pour maintenir APR créer benn genre opposition pour mën ko maanaam mën ko mën ko dëgërloo c'est-à-dire mën ko protéger woo parce que il faut que mu protéger woo Macky Sall bu paree nguur gi il se il sera obligé mu protéger wu parce que dañ koy woo ci yoon moom ak ay nitam ñëpp dañ leen di woo ci yoon te loolu j'en profite pour wax gouvernement bu bees bi. que mu raxas crédit yi ba mu set crédit yi nañ defaraat biro yi crédit yi nañ dem raxasaat biro yi nettoyé biro bureau yi peinturaat ko def ci ay photos yu bees parce que crédit yi day liggéey.